billahi samina ali min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim lillahi ma axaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin saman allahuma yaxfir lahu warhamhu waaw mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di wax ne yàlla mooy kii moom te jël na kon nag euh, ñu ngi wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ne alhaaji Moustapha Gueye yal na yàlla jéggal ko te yërëm yàlla jéggal ko te yërëm di wax ni tey am nañ tiis ak naqar ndax kilifa gu màgg ci diine ji dem na waaye loolu la yàlla dogal ndax ñi ko ñi ko fi jiitu woon ñoo fi nekkoon te dem nañu ay yonente ay boroom xam-xam kon moom it dem na ci tool bi nga xamante ni moom la yàlla gërëm moom la yonentaam bëgg wax ci moom nag dana jafe ndax man kenn laaj ci ndongo yi nga xamante ni jàngal na leen dalee ko ci laxdari muqaddimatul izziya risala loolu di kutubu fiqhiya nga ñëw ci naxwu jàng mulxatul leeraab ajurumiya ba ci suñu téere bi nga xam ne bu ñu ko masaan jàngal mu ne ma jóob suñu téere maam bi day jàmbaar la de mooy muxaddimatul kokki yi kitaabu tasrif boobu nga xam ne sama maam kokki yi moo ko bind moom mooy ki nga xam ne jàngal nañu ko kon daal si gàttal moom daal lépp loo xamante ni xam nañ ko ci suñu wàllu diine mooy ki ñu ko xamal ginnaaw suñu borom subhanahu wa kon nag euh, metti na trop xol yëpp tooy na njàqare mi ngi fi waaye nag du ñu wax ne lu dul ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi nag wax dëgg yàlla tey mënuñu wax mënuñu wax ndax ki jóge ci man dafa rëy mën naa wax ne ajjuma ji mu mujjee jiite juma ci sama mbagg yi la téye bañ dugg ci jàkk ji juma bi mu mujjee jiite ci samay mbagg la téye maa moom ci biir kër gi ñi génn ba ni duggee ci jàkka ji mu jiite jumaa kon kii ku ma jege la ku ko xam laa astuut ci moom waaye ku ma bëggoon la tamit ku ma fonkoon la ku ma bëggoon la ku ma fonkoon la mën naa wax ni moom amul sax doom doomu deret amu ko moom ñëpp doom lañu ñëpp taalibe lañu mu nekk nit koo xamante ni duñu si xam-xam kenn mënul wax parce que ñëpp gis nañ teg nañ seen bët ci ni ko yàlla may xam-xam ci bu waxee nga mën koo taataan déglu ko bu demee ci wàllu alalam buy joxe da ngay yaakaar ni sax xaalis bi daf koy ñeengo wallahi alazim kon kii ku ñu ñàkk la wallahi ñàkk nañ ko ñàkk nañ ko màgg waaye nag ñi deseeg suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moom mooy ki fi des kullu man alayha jëmm jooju nag muy suñu borom subhaanahu wa taala moo yore lu dul jeex moom moo ñu fi indi tam moom ci moom la ñuy dellu te lii ko li dal ci kawam tey jàngal nañu ko xamal nañu ko waaw jàngal nañu ko xamal nañu ko ne musiba bu ñëwee delloo ko ci sa borom rek te muñ delloo ko ci sa borom te muñ kon nag ki la jàngal lii nag waxtu bu ko tiis bi dalee li koy noppal mooy nga jëfee la nga xamante ni doon na ko wax ba muy dund su boobaa nag nga xam ne yow yaa ngi ci yoon bi nga xamante ni moom tracé woon na ko kon nag ñu ngi tuub tey jégalu di wax ni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Moustapha Gueye sama papa la waaw sama papa la waaye eh, li ñuy wax rek askanu Sénégal ñëpp ñoo ñàkk waaw parce que nekkul woon alaaji Moustapha Gueye boo xamante nii waa këram daanaka doon na nit koo xamante nii ku kuy jàngal ku doon jàngale xam-xam la doon doon bay waaram lool ci diine ji ba tax na tey bis bii nii ñun metti na lool waaye man damay wax ne dañuy santaat yàlla parce que kenn ku ne tey ñaan nga yàlla am bis bu mel nii waaw yombut nag du lu yomb kon comme li fi suñu papa ñu wax rek ki fi jóge léegi léegi rek damay tënk rek di di ko ñaanal yàlla yàlla yal ko yàlla xare aljanna yal na yàlla yeesal yërmandeem ci kawam ak bépp mbooleem jullit bu mu fa fekk rek yéen tamit di leen sant bu baax a baax parce que am na am na tey ay médias yu bari yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi mais yéen déplacé wu ngeen ñëw ba fii bëgg a jël ay interview ci affaire bi vraiment ñu ngi leen di sant di di leen gërëm dama mëneewul wax nag. boo gisee sànq ba léegi sax ñi ngi wax ma naan leen euh, nañ interviewé ñeneen ñi mais ginnaaw ba suñu grand yi xëy na affaire bi xat na xat boo xamante ni ñoom ñëpp kenn amu ci temps. rajim bismillahi rahmaani rahim wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu biit réew mi ak bitim réew ci góor ak jigéen mag ak ndaw li ñuy wax du bari lu mooy. ñàkk nañ koo xam ne c'était un homme dimensional un homme international doo xam ndax dangay ngay jooy doo xam ndax dangay ngay rey parce que boo jooyee yaa ngi jooy ne xam-xam ma ngi dem bu fekkee da nga rey yaa ngi rey ne kii defkatu yiw la woon te danañ ko fay aw yiwoom lenn moo nekkoon ay waxam jaamu leen yàlla du ko basé ci kenn ku mooy rasulullahi ak yàlla qaala allahu qaala kon julit la borom xam-xam la ku gëm yàlla la woon ku daan jàng la ku daan jàngale la jàng na jàngale na di gërëm itam mënuñ koo fàtte njiitu réew mi parce que gis nañ ci taxawaayam kon bu fekkee ne moom taxaw na ko def na rôle bi Sénégalais yëpp waroon a def man na xam naa ne ku ndaw laa ci kër gi parce que nekkuma lu mooy as taalibe nekkuma lu mooy ab as sët li mu xam ci diine moom ko xamal lu mu daan wax xuulul xaq walaw kaana murra dëgg moom danga koy wax rek émission yi mu daan def ci RTS émission yi mu daan def ci télé yi bu ñu demee ba ay ustaas yi wax ci ay télé ñi ma cee wax jaar nañ ci formation xam nañ ay yëfam xam nañ itam naka la defaree li nga xam ne moom mooy société naka lam daan waxee ne société ñii ak ñii ak ñii lay doxee kon kooku buñ ko ñàkkee ñii danañ jooy ñii danañ ree parce que ku ci nekk am nga motif bu tax ngay ree ku ci nekk am nga motif bu tax ngay jooy euh, duñu guddal ndaxte le temps est vraiment précieux parce que am nga yenn loo leen def yal yàlla yërëm ko xaare ko aljanna jullit la woon boroom xam-xam la feebar bi yàgguloon mag bu feebar dikkee day dëkk bu fekkee da nga rëy ñàkk xam ñàkk xam gi day dëkk bu fekkee itam yeneen ak yeneen la ci gàttal daal feebar bi feebar bi yàgguloon amoon na ay feebar yu gënoon a garaaw yu ko daan dal yàlla di ko suturaal muy wér waaye nag dañ ne kullu nafsin zaiqatil mawt bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee waaw alhamdulilah ginnaaw ba nga xamante ne sant nañ yàlla ci dogal bi nga xamante ne moom moo wàcc ci suñ kaw bañ koy santee yàlla ndaxte yàlla suñ borom moo ñu jàngal ci alxuraan ne tabaaraka alladi bi yadihul mulku wa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa mawta wal xayaata li yabluwakum yàlla moo wax ci alxuraan ne man yàlla maa bind dee waaye maa bind dund mais ci kaw loolu lépp dee laa njëkk bind ci dund kon ala kulli xaal lu munta ñàkk la li ñuy wax mooy dee du jaaz kon suñu borom moom la njëkk bind ci dund kon ala kulli xaal xamoon nañ ne dina am mais li am solo mooy dee buy ñëw na la fekk ci lu neex suñu borom te alaaji Moussa Gueye mii ku xam Moussa Gueye xam ko ci jàngale ak yaraatekat jàngalekat la yaraatekat la jubbantekat la am na ñoo xam te ne jàngee nañ ci alaaji Moussa Gueye te gisuma Moussa Gueye ndax lan ci kaset yoo xam te ne def na ko yu bëree bëree bëri ci wàllu diine ñoo xam te ne tey buñ dajoo ne Moussa Gueye xamuñu ko mais jàngal na leen ci fatawaa yu bëri yoo xam te ne def na ko ay meer ay paa ay xale mais dañuy wax rek ne lii nga xam te ne moom la waa ji waxoon ne almawtu baabun kullu naasi daaxiluhu yaa layta shi'ri baadil mawti maddaar mu ne almawtu baabun dee de bunt la kullu naasi daaxiluhu képp ku yàlla bind rek mbindeef yëpp dañ ciy dugg mu ne yaa layta shi'ri baadil mawti maddaar xellante woon ma xaw ginnaaw dee gii nii fan mooy doon sama kër mais alaaj Moussa Gueye mi ku nekk xam na fan mooy këram loolu laa sakk werantuuñ ne alaaj Moussa Gueye xam nañ fan mooy dëkkuwaayam ndaxte ku bëggoon yónnente yàlla Muhammad daan ci wax lu bari bind ci lu bëri kon kooku am nañu yàqin ne yónnente bi lay dëkkal ku bëggoon Cheikh na Amada Tidiane Serif la ki nga xam ne moom moom moom tarixa di Tidiane yi te waxoon ne képp ku jàpp ci sama tarixa bi man garantal naa la sa àddina ak sa àllaaxira kon foofu tam werante waaye ku bëggoon Maulana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam te ne mooy xuddu zaman ki nga xam ne moom mooy xettali jaam yàlla ki nga xam te ne lu lëndëmoon moo ko réeral ki nga xam te ne lu góor ñi daan wuri ay ati at ngay ñëw mu jox la ko ci ay minute wala ci ay fan wala ci ay seconde kon kooku nekk mu xaddama Maolana Cheikh Ibrahima kon am nañu yàqin lu njort lu rafet dina dëkkaaleeg Cheikh na Ahmada Tidiane dina dëkkaaleeg Maolana Cheikh Ibrahima dina dëkkaaleeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy ñaanal rek mooy lim bàyyi mu néew. mu bëri yal na ko yàlla barkeel ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu jëm yal ko gënal fi mu jógee ab jullit xaqal la taalibu tijaan xaqal la kon wax dëgg yàlla xol yi fees nañ waaye tam dañuy delloo lépp ki nga xam te ne moom mooy jàll jalaaluhu mooy allahu tabaaraka wa taala inna ajalallaahi nag idaa jaa laa yu'axxaru digg bu joree mënoo koo tardé benn laxsa benn seconde kon loolu luñ amoon lu ñuy wax ñu ngi jaale ñëpp nag umma islaami bi yëpp bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ma aata wa lahu ma axaz wa kullu cheyin indahu bi miqdaar fal nasbir wal nastasib yaa alhaji Moustapha Gueye inna bi firaaqika la mahzuunuun wa inna al ayna la tadma wal qalbu la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna assalaamu aleykum ixwatal imaan assalaamu aleykum yaa bani aadama su muy nuyoo dama naan bani aadama laay nuyu moo xam ci bépp diine boo nekk maa ngi lay nuyu ne yàlla de jël na alaaji Mustapha yàlla moo ko moom ndax yàlla li mu maye moo ko moom lu mu jël moo ko moom loo gis am na bés ba muy jeex yàlla dogal na tey jii de wala altine ci ngoon la yàlla jeexal dundam ci àddina woo ko mu wuyu ji ko alaji Moustapha ba muy génn fii nga xamante ne mooy dëkkam seedo ca caareen boobu ma sóoragut ba léegi delluwu fa day dem ñëw rekk jóge na fa dem cubbeen jàng fa la mu foor a jóge jóge fa yàlla boole ko cheikhul islaam mooy fay bi cheikhul islaam yàlla dogal na ne ci àddina bi foo ko waxe sa xel bu demul ci bàyyi danga ngaa moom mooy cheikhul islam jóge fa dem Maroc jóge fa ñëw ba léegi tey jii su fekkee ñibbi na na fas yéene ñibbi caa caareen ca seedoo kon alhamdulilahi rabil alamin kan mooy Alaaji Moustapha Gueye mooy ki nga xamante ne moo jàngal ñépp alquran mooy ki nga xamante ni moo jàngal ñëpp xadis li bettu ko def na axiru zaman ñetti téeméeri conférence ak ñeen fukk def na ko man la joxoon ndigal ne naa ko defar lu war a tolloog juróom fukki téere taalif na ko yooyu man mi la ko dénk naa koy génne par benn benn man mii di wax ak yéen man la tànn dénk ma ci lépp loo xamante ne mooy jëm na ci xam-xam wala jëm na ci culture wala jëm na ci ba ci jàkka ji alhamdulilah rabbil alamin alaji Moustapha su fekkee nee nañu bu dem na moom ji Moustapha la su ne su dem na alhaji Moustapha maa ngi lay waatal ci yàlla ne bu xëyee birom nekk fu wulu mooy ñi nga xam ne dañoo leen amuñu luyaas mu fayal leen ko miskin yi nga xamante ne amuñu mu fayal leen ko nii lay xëyee ba midi mu jëpp lu mu am ñépp ñee ko moom Alaji Moustapha bëgg xettali nit yi moo tax mu dugg ci PS dem na Maroc fépp nga étudiants yi mel ni yéen amuñu bourse nekk ci tumuranke mu daal ñëw amul benn yoon bu mu leen mën a jàppale pour ñu am bourse lu muy dafa dugg ci PS mu daal di militer ci PS ñu boole ko ci mu ne leen acca jàppale leen kii di arabisa yi ñu fal yemale yemale étudiant français ak étudiant arab looloo ko tax a dugg ndeke suuxat islaam moo ko taxaloon dugg ci PS kon xett li mbindeef fii la Alaaji Moustapha yal na ko yàlla yërëm kon yal na ko yàlla bu ma doon wax ak moom li ma leen di wax mooy wuutoon naa ci moom ndigal na bind jaar-jaaram yàlla dogal la bind nañ ko muy quatre-vingt-deux amul lenn loo xamante ne rek war naa koo xam ci moom lu mooy lenn li moo ma ko wax lenn alaji Ousmane Sarr moo ma ko wax lenn alaji Jibril Gueye moo ma ko wax lenn li lii nga xamante ne mooy oustaz Thiam moo ko lenn li moo ma ko wax pat quatre-vingt-deux pages bind naa ko ci dundam téere bi ala kulli haal ñu ngi ko tuddi al abqari al abqari mooy kilifa yi kilifa yi kon ala kulli haal kon ànd na ak man wax na ma nag wax yoo xamante ne damay koy sant yàlla ndax nee na sama daawa bi tas na mooy sama woote bi tas na ci àddina bi yàllaa ko tas mais ci sa lo sa loxo yow Ahmed Harouna Ly Thierno lii la ma doon wax daaw ma wax sax Amadou lii Thierno lii rek la ma doon wax ci sa loxo la jaar kon mooy reyaasul wara ki jàngal ñépp alquran dem na ki jàngal nit hadis dem na ki doon liggéeyal boromam dem na yal na ko boromam defal classé ko fi nga xamante ne foofu la classé yonent yi ak saxaaba yi ala kulli xaal ndem mbir mi dañ koy gàttal. waaw oh, ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax inna lillahi di jaale àdduna bi yëpp di ci jiital alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ñu koy jaale di ko masowu ci tiis wu rëy xam ne moo wàcc ci kawam di jaale imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Alioune Cissé ñu ngi jaale tamit. Cheikh Mouhamadul Mahi Alioune Cissé di masu àdduna bi yëpp ci tiis wu rëy wi nga xam ne moo wàcc suñ kaw ci monument boo xam ne def na ci diine lislaam lu ne waaw dëgg-dëgg moom desalatuñu dara ñun ñoo ko desal àndoom ak Cheikh Ibrahima ci diine lislaam ak ci tarixa tijaan ak ci faydu lépp matal na ko kon su defee lii des rek mooy ñu ñaanal ko ñun amuñ lenn loo xam ne mën nañ koo wax lu ñu ngi jaale suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di ko massoo bu baax ci tiisu réew yi nga xam ne moom moo wàcc si koom